auzu billahi bismillah inna waliyallah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi mbokk niy déglu mbokki talibe yi ak fu ngeen mën a nekk ci àdduna di xool seen daara ji nga xam ne mooy Africa set seen mbokkum talibe di ànd ak yéen ci téere bi di diwaanu silkul jawahiri fii axbaari sarairi di téere bu am njariñ te li ci nekk lépp di waxu yonante bi sallallahu alayhi wa ak saxaabatul kiram eh, tey nag ñu ngi àndaat ak yéen ci mottali bunt bañ bàyyee woon muy faslun fi zikri ma yalqa al mumin inda xuruji wala inda qabdi ruuxi yi ñu mottali bunt boobu ndax téere bi indi na faslun fil janna faslun fi ashjaari janna faslun fi xuuril ayn bunt yi tubaarkàlla incha allah bu ci nekk rek fas yéene nañu ànd ak yéen ci leeral ko incha allah rabbul alamin tey nag ñu fas yéene ànd ak yéen ci fi ñu bàyyee woon an ibnu al mubarak idan qadat nafsu al mumin jaahu malak al mawt fa qaala assalaamu alayka ya waliyallah allahu yuqri'uka assalaam summa qara'a haadihi al aaya alladina tatawaffaahum almalaikatu tayyibin yaquluuna salaamun alaykum defe naa foofu lañ bàyyee woon muy jullit bi saabu malakal mawti bëggee jël ruuxam bu ñëwee rek da koy wax ne ko sa borom a ngi lay nuyu ruuga daal di nangoo ànd ak moom mu yóbbu ko ci boromam daal di wax ne wa fiihi an il bayhaqi fi qawlihi taala in alladina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu an la taxaafu wala taxzanu wa abshiru biljanna allati kuntum tuuaduun qaalu zalika inda almawt nee na loolu sun borom wax ni ñi nga xam ne inna allazina qaalu rabbuna allah ñi nga xam ne wax nañ ne sunu bor yàlla daal mooy sunu borom summa staqaamu te tege ci yoonu njub tatanazzalu alayhim almalaykatu dana wàcc ci ñoom malayka yi ana luñ leen di wax an laa taxaafu wala tahzanu yéen kat bu leen tiit bu leen jàq wa abshiru bil janna allati kuntum tuadun an laa taxaafu bu leen tiit wala tahzanu bu leen jàq bëgg leen ndax àjjana ji leen seen borom doon dikk nee na ibnu mubarak nee na loolu mooy jamono booy faatu rek la malaaka yi di wax yooyu fekk ab jullit nga gëm sa borom wa an xaatamin an mujahidin fi l aaya qaal an laa taxaafu mimma tuqaddimuuna alayhi min al mawt wa amri l axirati wala tahzanu ala ma xalaftum min amri dunya min waladin wa ahlin wa daynin fa ana astaxlifukum fiihi nee na loolu li muy tekki xaatam nee na yàlla kat day wax ne bu leen tiit bu leen jàq bu leen tiit ci li ngeen dëgmal li ngeen jàkkaar lool alayhi min al mawt wa amril axirati ak la aju ca lool ci mbirum alaxira wala taxzanu amma xalaftum bu leen nag ragal itam di tiit ci li ngeen bàyyi min amri dunia min waladin wa ahlin wa daynin li ngeen bàyyi ci njaboot ak doom ak yin demee bu leen ci jàq ndax man seen borom kat astaxlifukum fiihi dana leen wóotu ci seen ñoñ seen doom seen alal ak la ngeen bàyyi adduna yàlla ñu ko yàlla defal wa fiihi abi xaatam qaal yu'ta al mu'min inda al mawt fa yuqaalu laa taxaf mimma ant nee na bu ki di faatu dana am lu ñëw ci moom ne ko bul tiit bul jàq déedéet mimma ant qaadirun alayhi wala taxzan ala dunya bul tiit ci la la yàlla jox bul ragal itam ci adduna déedéet wala ala ahliha wa absir bil janna fa yamuutu nee na buñ ko waxee loolu ne ko bul tiit ci dee gi nga dëgmal alaxira gi nga dëgmal bul ragal ci li nga bàyyi ci sa gannaaw ruuga daal di nangu daal di bëgg ànd ak malakal mawt dégg nga wa fihi an abi xaatam annahu suila alxasan an qawlihi taala ya ayyatuha nafsu almutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya loolu dañoo laaj xasan ne ko loolu lan lay tekki mu mu wax ne ila llahi watma anna allaha ilayha nee na ay ruuxul mumin inna allaha taala ida arada qabda ruuxihi wala ruuxa abdihi almumin itma'annat ma ila llahi wa atma'anna allahu ilayha alxasan dafa wax ne aaya boobu li muy tekki mooy yàlla jamono bu dogalee ruuxu jullit bi di faatu dafay bëgg moom ruux gi ngir jàkkaarloog boromam borom itam day bëgg jël ruux ji léegi nag loolu mooy bunt bi nga xam ni ca lañ mujj bàyyi xam naa foofu la ñuy taxawloo ni ci bunt boobu dugg nag ci faslun fi zikri fitnati alxabri wa zikri almalaki alladi yadxulu xabla munkar wa nakir léegi nag mu ngi bàyyi wax jooju dugg ci wax ji nga xam ne jamono bu jullit bi faatoo nag bañ dugal ko ci biir bàmmeelam ba munkar ak nakiir di ñaari malayka yooyu nga xam ne ñoo dikkal nit ki su faatoo ñëw ngir dikk war koo laaj sëriñ bi nag moom am na lu mu wax ne mooy xew bala malakal mawti bala munkar ak nakiir di ñëw ci bàmmeelam wa fi lxabari ann almumin yuftanu fi qabrihi sabata ayamin walkaafiru arbaina yowman mu ne jullit su faatoo fitnay bàmmeelam juróom-ñaari fan lay doon juróom-ñaar ma tax léeg-léeg ma wax ni sunu magi diine ci réew mii ku leen gën a dégg diine amul soo gisee ñuy ñaanal néew bu faatu ci juróom ñetteelu fan ndax bés bu dellusi ci bàmmeel ak ñetti fan yi bàmmeel ak ñeen fukki fan yi bàmmeel lu ci nekk am na cosaan am na cëslaay léeg-léeg nag nga dégg koo xam ne day wax ni juróom-ñetti fan ak ñetti fan ak ñeent fukki guddi yooyu taxawul fenn du sunna du nangam waaye nag loolu ak ñekk xam la sëriñ bi day wax na ci silkul jawaahir yi nee na ab jullit su nekkee ci bàmmeelam juróom-ñetti juróom-ñaari fan yàlla dana ko indil ay tiis ak i naxar ci juróom ñaari fan yu njëkk yooyu ci biir bàmmeelam kon jàpp naa ne kuñ ci ñaan yërmande yàlla yàlla na yay na wal kaafiru arbaina yowman nee na su dee ab yéefar la nag dana am njaxar ak tiis ñeen fukki guddi muy am tiis ak naxar xëy na am na yeneen yoo xam ne danañ ci indiwaat ay ay ay ay leeral ci ñeen fukki guddi ak juróom-ñetti fan ndax léeg ngay gis ku la ko laaj naa xamoo ni ñetti fan yi bàmmeel dara dara dara àdduna jaru ko ñetti fan yi nit di njëkk a fanaan ci guddi ci bàmmeel dara àdduna jaru ko nit li tax ñu li ko ñaanal ci juróom-ñetti fan su demee ba am juróom-ñetti guddi ci biir bàmmeelam lépp loo xam ni bën bën la bu nekk ci moom dafay xelliku su dee nopp la su dee bakkan la su dee pay la circul jawaahir yi mii ñu tiim di ci jàngale sëriñ bi wax na ne pay mooy njëkk a yàqu ci nit li nga njëkk a fonk ci àdduna nit ki su faatoo ba am juróom-ñetti fan loola njëkk a yàqu te bokk na ci awra nit woon ba ne mbedd mi la muy njëkk ci moom bu amul lu mu suturloo awraam lay njëkk suturaal loolu nag nga fonkoon bokk na ci liy njëkk yàqu ci biir bàmmeel ci juróom-ñetti fan nopp day xelli ko bët day xelli ko bët ku am juróom-ñetti fan ci biir suuf bëtam tuuru su demee nag ba am ñeent fukki guddi ci biir bàmmeel ci la biir du ko moo tax ñuy ñaanal nit ci juróom-ñetti fan am na yeneen yu ci xay yu ci aju bu ñu yàlla may jot ji incha allah dinañ ci dikkaat wa qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam man maata yowma aljumaati wa leylata aljumaati ku faatu guddi ajjuma wala bésu ajjuma amanahu amanahu llahu taala min fitnati alxabri nee na ku faatu yonent bi nee na ku faatu ajjuma wala guddi ajjuma wala bésub ajjuma mbugalum bàmmeel yàlla musal na la ci loolu wax yonent bi la wa fi lxadisi innama alqabru rawdatun min riyaadi riyaadil janna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit bi jarul muy ragal bàmmeel ndax bàmmeel tool la ci tooli aljana yi dër la ci dëri aljana yi rawdatun min riyaadil janna wa xufrun min xufri naar su fakkee nag eh, yéefar la nag may na am pax la bën bën la turu bu la bu sew bu xat ci pax yi safara ci koo xam ne dangaa weddi yàlla dana xat lool wa fil xabari abi umamata al bahili radiyallahu iza tuufiya rajul wudia fi qabrihi fa yaji'u malaka almawt inda ra'sihi wa munkarun wa nakir wa yuqcidaanihi wa yadribaanihi darbatan waahidatan bi tarfati ayn min xadiidin wa lam yabqa cudwun illa qatacathu wa talhabu fi qabrihi naarun fa yuqaalu lahu qum bi izni illahi fa ida huwa yaqcadu mustawiyan fa yasiixu sayhatan yasma'uhu maa bayna xaaf xaafiqayni ay al mashriq wal maghrib illa al insu wal jinn allahu akbar mu ni yàlla ñu ci yàlla musal mu ne nit su faatoo nee na munkar ak nakiir dinañ ñëw malakal mawtu ñëw toog ci bopp ba munkar ak nakiir dikk wa yoq ay daanihi dëj ko mu dëju wa yadribaanihi darbatan bi tarfati aynin min xadiidin danañ ko dóor dóor boo xam ne ci xef ak xëppi benn dóor boobu ñu ko door nee na yaram ma lépp lay xotti lam yabqa udwun illa qataathu yaram ma léppay tasaaroo xotti ko ci benn dóor bu ñu ko door ñu moom mun ko rek na kii ñoo koy def loolu fa yasiixu sayxatan dana yuuxu nag sayxatan yasmauhu ma bayna alxaafiqayn nee na loolu mooy nit ak jinne penkook sow ku yàlla bind da dégg yuuxu googu ñuy ko ñuy duma ci bàmmeelam da nga ko dégg illal insu wal jinn nee na doomu aadama daal la suñu borom waxoon rek fa bi ay alaa'i rabbikumaa tukazzibaan nit ak jinne lu tax duñ dégg li yàlla di wax nee na ñooñu rek ñoo dul dégg yuuxu ki ñuy mbugal ci biir bàmmeel fa yaquul nee ñu wax ko ne ko ah, li ma faalta haada wa li ma darabtumuuni nee na moom mooy wax naan leen lu tax ngeen di ma dóor lu tax ngeen di ma def nii wa ana kuntu uqimu salaat te daanaa taxawal julli wa aati zakat te daanaa joxe azaka wa asuuma ramadan danaa woor weeru koor qaalu nauzu billahi minka fa innaka mararta yowman bi mazlumin wa huwa yastaxiisu bik fa lam tuxisku ñu ne ko li tax ñu di la door mooy dangaa romb bés koo xam ne dañ koo tooñ di ko néewal doole muy sakku ndimbal ci yow fekk daan nga woor dan nga julli dan nga joxe azak waaye kookee sàkk woon ndimbal ci yow daaw dimbali woo ko woon ci bis boobu ñu ko doon néewal doole moo tax ñu di la duma duma yi tey te loolu sëñ bi bari na ci réew mi ak bari ci réew mi mu daal di wax ni am na bis itam fa lam tuxisqu wa sallayta yawman wa lam tastabra min bawlik am na bés nga julli te ferlu woo ba nga ferloo itam siwu woo su dee day tuur ndox yont bi nee na yegg suuf su dee góor la te itam na wisu maanaam na jël ndox def ci kanamam yooyu yëpp xam nga yont bi jàngale na ko indi na ci yu baree baree baree bari nee na li tax ñu di la duma tey mooy danga ngaa tuuroon ndox te ferluwoo boo ferloo itam defoo ndox ci sa kanam falam tastabra min bawlik fa tabayyana hada inna nasrata al mazlum waajibun nee na loolu nag la muy jàngale Sëriñ Tubaa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy jàngale mooy ab julit su fekkee dañ koo tooñ su sàkkoo ndimbal ci yow ko dimbali kon dimbali ab julit nee na waajibun lu war la kama ruwiya an nabi sallallahu alayhi wa sallam man raa madluman fastaxaata bihi wa lam yuxithu duriba miata fi nnaar nee na képp ku romb ku ñu tooñ di ko niiwal doole mu sàkku ndimbal ci yow te dimbali woo ko nee na su ëllëgee yow moom romb kañ doon néewal doole te tooñ ko danañ la dóor téeméeri yar ci safara sëñ bi kon yàlla di xam naa ne moom bu tàmbalee woon ci réewum senegal moom xam naa dana duma ba tay wallahi mu daal wax ne wa ruwiya an abdullah ibnu omar radiallahu anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam innahu qaal arbaatu nafarin yaxsuruhum allahu taala yowma alqiyama ala manabirin min nuurin fa yudxiluhum fi rahmatihi qiila man ulaika ya rasulullahi salallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na jële nañ ci abdullahi ibnu omar radiallahu anhu mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne ñeent ngi nii ñoo xam ne su ëllëgee suñ borom yàlla kat dana leen pang dajale leen waaye dana leen teg ci leer goo xam ni ci leeram yi moom sunu borom dana leen dugal ci mitam mi itam yërmande joo xam ne ñeent ñooñu rekk la koy defal nee na ñu ñu laaj Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñeent ñooñu ñan la nee na yont bi ne fa qaal man ashbaa jaian ku jox ku xiif mu lekk ba suur wa man jahaza ghaziyan ak képp ku jóg di jihaat ci yoonu yàlla nga wutal ko ngànnaay léegi nag gannaaw ba ut ngànnaay ci jihaat amatul léegi nag yoonu yàlla yii nga xam ne ñiy wax ci yoonu yàllaa ngi fi ñiy wax ci diine ñi ngi fi danga gis ñoo xam ne wut yàlla moo leen tax a jóg nga dimbali leen ngir yàlla ak fu ñu ko mën a defe nag loolu ci jihaat ci yoonu yàlla la wa man aana daifan aw malhuufan wala ku lompoñ ku néew doole mu sàkku ndimbal ci yow nga dimbali ko ngir yàlla ak noo ko mën a dimbalee te yàlla tax ak ndimbal mu mën a sàkku nga dimbali ko te yàlla tax ñetteel ba mooy kooku la ti bi wax ni ëllëg sunu borom yëmal xiyaam fa leer am te waru faa ñàkk sunu borom dana la jox leer foofa yow dégg nga ay mahzunan nee na malhuufan nag li muy tekki mooy koo xam ne dafa am njàqare nga teggi njàqareem min mahdumin ci koo xam ne dañ koo tooñ neena yooyu dimbali ku néew doole jox nit ku xiif ku ñuy néewal doole ci tooñ ko wala mu néew doole ci alal nga jox ko ngir yàlla nee na yooyu de yon la yonent bi wax ne képp koo ci dimbali sunu borom ëllëg dana la jox ker dana la dimbali dana la jox yërmande daal ne intaha min shajaratil loolu nee bunt la woon buñ indi ci shajaratul yaqin ci malakal mawt ak yi ciy xew ak yi nga xam ne moom la moom la yàlla di def wa ama al malaku allazi yadxulu al xabra qabla munkarin wa nakirin fa fi sujjatil yaqin aydan annahu ruya an abdullahi bnu abdullahi bnu salaam radiyallahu anhu qaal sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an awwali malakin yadxulu al xabr ala almayiti qaal yadxulu ala almayiti xabla munkarin wa nakirin malakun wajhuhu yatalala nuuran kashamsi wasmuhu rawmaan nee na jële nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te wax jooju boo demee ci sajaratul yaqin da nga ko ca fekk mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne dafa am ku ko laaj ne ko ana kan ana man malaayika te Abdullah ibnu Salam moo ko laaj ne ko an man malayka mooy njëkk a ñëw ci bàmmeel njëkk munkar ak nakiir yonent bi ne ko am na malayka muy njëkk a ñëw laata munkar ak nakiir di ñëw kookee xar kanamam day leer day belli yatala'la ka shams day xuy di larxat ni di larxate yonent bi ne ko wasmuhu rawmaan malayka moom mu ngi tudd rawmaan fa yuqidu almayit dana dëcc aji deeji su ma yaqulu lahu uktub ma amilta nee na ñetti baat rek lay wax ak moom ci tënk uktub ma amilta min min alxasanat wa sayiat fa yaqulu lahu bi ayi cheyin aktub ayna qalami wa midaadi fa yaqulu lahu fammuk qalamuk usbuuka wa midaaduk wa riixuk riiq fa yaqulu fa bi ayi cheyin aktubu fihi wa laysa maci saxifatan fa yaqtau min kanafihi qit'atan fa yunaawiluhu lahu fa yaqulu hada saxiifatu faktub fa yaktubu maa amila min addunya min xayrin wa sharrin fa ida balaga sayi'atan fa yastaxyi minhu fa qaala lahu almalak yaa xata'u yaa xata'u amma astaxyi min xaaliqika xaysu amiltaha fi ddunya wa tastaxyi wa tastaxyi minni al aan fa yarfau al amud fa yadribuhu maanaam ci tënk euh, dafa wax ni rawmaan su dikkee ñett rek lay wax ak yow yow mi aji faatu ji ñett rek la lay wax dafa lay wax ne la tey bindal loo ma sa jëf ci lu baax ak lu bon ci jëf joo ma sa jëf ci àdduna nga ne ko awma xalima joo xam ne ci lay bindee aw ma daayit ju bindee aw it alluwa joo xam ne fa lay bind li may bind kon ndekay xalima mooy bind waaye ci euh, alluwa lañ koy bind léegi nag loolu mooy bindukaay gi ak li ngay bind ak jif ji lan ci daa jan daa nga koy binde nee na mun la nga ne ko awma xalima mun la sawee yii tey dana la doy sëkk ci ngay bindee ngan ko awma daaju ma bindee mun la sa rongoñ yii dégg nga ak sa teflit yii doy na la sëkk tey daajoo mën a binde nga ne ko awma ma euh, alluwa joo xam ne ci lay binde nee na mu dagg ci sa càngaay jox la na la fii ngay bind bindal loo ma sa bind loo ma sa jëf ci lu baax ak ci lu bon nee ngay bind di bind di bind léeg nga yegg ci bàkkaar boo defoon daal di koy xool bëgg am kersa mu ne la déedéet jaru ko ba ngay jëf-jëf jii ci àdduna amoo woon kersa kon bul am kersay bind ko nee bind ko di la force nag ci nga bind ko loolu mooy xewaar bi nga xam ne mooy dox diggante ki dee ak malayka moomu ñuy tuddee rawmaan rawmaan nag malayka mu doy waar la ku doy waar la dégg bu ko defee nag su boobaa xataa ak tubaha fa yarfauhu fa yaktub biha fa yaktubu biha jamia sayiatihi wa jamia xasanaatihi fa yamuru an yatwiyahu wa yaxtimahu fa yaqulu bi ay cheyin axtimuha wa laysa maye xaatamun fa yaqulu lahu axtimha bi dhufrik wa yaxtimuha bi dufrihi wa yualliquha bi unuqihi ay fiihi ila yowm alqiyamati nee na su boobaa nag soo bindee ba yeggal raw ma ne la waaw léegi nag signeel ngeen ko ah ana fa bay signé mun la sawee wi yi na tey signature kase booy kase directeur ak foo mën a nekk ak njiit loo ma sa doon tey daal yow sa kase mooy sa sa wi yi daal ci ngay kase ci ngay cacheté nee na mu forcé la ba nga signé ca suuf la nga bind ci lu baax ak ci lu bon nee na mu daal di jël nag sa téere jëf yooyu wékk la ko nag wékkal la ko mu doon téere baat boo xam ni moom ngay wékkoo moo xam lu baax a nga ca moo xam lu bon a nga ca waaye dala koy wékk nag nga wékkoo ko doo ko wékki mukk lu dul yomal xiyam wa fii ka kaibi ma lafzuhu su ko defee nag noonu lay continuer noonu lay continuer ba nga xam ne xëy na da bunt bi dafa gudd lool waaye boo demee bu ne meles dem rek malaka munkar ak nakee nag door a ñëw tàmbali di la laaj di la laaj yañ lay laaj nga xam ne téere yi ci ëpp ci sharia indi nañ e, njub ak dëggu ak ak yaru ak jaamu yàlla ci salawaat ci salawaatul xams wala ci sawm ramadan ak ci gëm yàlla waaye ci téere bii ba tey bi ñu tiim muy silkil jawahiri Sëriñ Tuubaa leeral na ci ne lépp lu ab jaam di jëf gëm yàlla te dëggal ko moo ci war a jiitu te wax na ne la ñuy njëkk a laaj ci bàmmeel bokk na ci gëm yàlla léeg nag nga gis koo xam ne waxtaan wi nuy wax wala xeeti waxtaan yi ñuy waxtaanee dana jàpp ne kii wax waxuma wala tal naa leneen lu gën lii wala maa nga ca leneen wala ah dañoo bari wax di waxtaan waaye ñiy wax nañ wax li ñu war a wax rek te nga bàyyi xel ne li ñuy njëkk laaj ci bàmmeel wa yasalaanihi an xaddi tawxiidi la ñuy njëkk a laaj ndax gëm nga yàlla ah waaw gëmoon na yàlla de nee ne su ko defee ñu laaj la waaw gannaaw ba gëmoon nga yàlla ndax gëm xam nga ñaati ponk la ndax gëm xam nga ñaati ponk la nee ah, na xaw ma ñaati ponk la mu la gëm juróom benn ponk la al imaanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir wal xadri xayrihi wa sharrihi na su fekkee loolu xam nga ko ñu jàll waaw ndax daan nga julli ah waaw daanaa julli de ñun la julli ñaati faratalaam nee na nga nëkk nëkkal danañ la dóor mbol de goo xam ni danga dem taxta seree da dem ci juróom-ñaareel bi suuf dellu si xataa ya mujj demaara daax nee na meew mi nga njëkk nàmp ci sa waajur wu jigéen keroog dana génn buñ la dóoree seen balde googu kon yow mi nga xam ne xamuloo loolu ki la koy wax jàppale ne da la bëgg laay biir sa diggante sa borom su ko defee nag ñu ne la laaj julli jullee ciy sës dégg nga julli moo cay topp ñu laaj la waaw yow ndax daan nga julli ah waaw daanaa julli de da nga julli nga ne waaw nee na ñu laaj la waaw julli ñaati farata la am nee na nga nëkk nëkkal ne ñu daal di lay dóorati dóor goo xam ne da dem taxta sere su ko defee nag meew nee na xataa yem mu jëmaara daa ba tey meew ma nga njëkk a nàmp sa waajur sax dana génn ngir metti metti dóor booba lay dóor sëriñ bi nag nee na la moom ci waxu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jàppal ni julli am na fukki farata ak juróom dégg nga adduna li nga fiy liggéey lépp xam fukki farata ak juróom yooyu moo ko gën ci yow nee na suñ la ko laajee nga xam ko ñu jàll waaw julli xam nga ñaati sunna la am nee na nee na nga nëkk nëkkal nee na la kon jàppal julli am na fukki sunna ak juróom-ñett jullit bu ne war na koo xam bala moo dem yooyu lañ lay laaj ci bàmmeel ba keroog nag lañ lay laaj jeex soo réussiree yàlla dogal nga am aljanna su fekkee nag da ngaa échec wala iyaasu billahi ñu toppali di la door di la mbugal mbugal yoo xam ne day jëm yomal xiyam mbokk yi ñi ñuy déglu di seetaan. bunt boobee lañ leen indiloon ci téere bii di silkul jawaahiri di ko amale fii ci Africa 7 sunu daar ji di ñaan sunu borom may nu jàmm ak tawféex ba keroog ñu dellusiwaat ci yeneen bunt yi asalaamualeykum bunt bi jeexul nag waaye danañ ci dellusiwaat insha allah mottali ko wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin anta arrahimu samadu arrahmanu almuminu almuhayminu almannaanu اكفي البلاء وجمة الوباء وسوق إلى الأعداء كل داء اللهم صل على بدر التمام allahuma salli ala nuuri zalaam allahuma salli ala miftaahi daari salaam allahuma salli ala shafii fi jamil anaam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yàlla defal jàmm